rasulillah sallallahu taala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa jaxale bi bi fadlihi wa karamihi jumaati liya asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñun ñëpp gisandoo liy xew ci réew mi loolu moo tax nag buñ ko wutal waxtu ci war wax ak bu dox jote ñu jóg dox la ma waxoon rek ci laa bëgg yokk tuuti réew mi famille bu nekk am na responsable bu ñuy wax responsable ku ne xam na ne responsable bu mag bee mag a mag a mag di kilifa ñëpp ma nga ca penku waaye ku ne xam na ni wax na waxati na wax na itam ba tàyyi kon kenn ku nekk bépp responsable responsable religieux responsable politique responsable bu mën a nekk ci pouvoir wala opposition am nga responsabilité ci réew mi ci sa gox ak nit ña lay déglu fi mu toll nii malaayika yi nun ñëpp lañu ñu interpellé rawaan yi rawaan nun ñëpp lañu ñu interpellé jinne yi nga xamante ne bii du ñu ay yàqkat dañoo bëgg lu baax nun ñëpp la ñu interpellé fi mu toll nii fu xale yi defe dara rek foofa am na leader politique boo xamante ne bii moo leen ko waafee mbaa ñu koy déglu bu ku nekk defee nii ma def mbir yi dal di dakk kenn ku ne bu waxee ak i nitam man samay nit kenn du gis ñu bokk ci au contraire dañu yàq ba noppi ñu ñoo jéem defar dëgg bu ñëwee dañu koy wax waaw sëriñ tax mi ngi ci li mu war a nekk wax na ba tàyyi waxlu na ba tàyyi waaw koo xamante ni bi nag yàlla du ko ruus yonent bi ruus ko Sëriñ Tuubaa ruus ko malaayika yi ruus ko ah réew mi dañu ko war a ruus waaw benn kàddoom ba mu njëkkee wax rek dara waratul a xew jàmm rek war a xew man nag du ma yem ci wax ji nii bu soobee yàlla dinaa fexe ba fu ma fi mën a taxaw dinaa dem taxaw fa xale yu ma jàkkaar loolu dinaa wax ak ñoom waaw ndax itam loolu sama responsabilité la bu njëkk dañ daan wax ne man maay sëriñu band yi loolu lañ daan wax may dem ci gorod yi di leen fa jëlee di leen convaincre di leen dugalaat ci société bi di ŋaat ŋaati ànd ak ñoom ci naaj wu tàng waaw maanaam di waaj am juróom-ñaar fukki at du tax maanaam damay dem retraite ci liggéey bi déedéet ku tedd ki bi muy liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent bi di liggéeyal alquran di liggéeyal lislaam sa wàcc man fas yéene gi ma fas yéene liggéeyal ku tedd ki du ma du ci jéem wàcc xanaa ñu dugal ma ci biir suuf loolu damaa bëgg ñëpp xam ko waaye réew mi daal ku nekk responsable nga li ma bëgg a wax du xaj gis nañ démb ba fi tubaab yi nekkee jàpp nañ ku nekk jàpp nañ ku nekk bi fi tubaab yi nekkee rey nañ ku nekk rey rey ay reyin yu doy waar waaw ñii bi ñu fi nekkee itam bi tubaab yi demee ba Sénégal yi jël seenum réew yi itam wax dëgg yàlla notel gi moom du ma ni deñ na à cent pour cent waaye lu ci bari deñ na bu ko defee nag kon léegi bu nu bu nu fexee ba voisins yi africains yi yàpp nu waa adduna yàpp nu te loolu réew mi mérité woo ko waaw ki nga xamante ne bii moo demoon ànd ak tubaab yi di liggéeyal boromam fanweeri at ak ñett ñëw bàyyi ñëpp réew mi di réewam ñëw baal ñëpp réew mi du am réewam mérite am réewam mérité wul lii xew waaw te waxoon naa fi bayit boo xamante ne bii ba muy soog a jóg ni woon xadd anqanil yow ma xubbul ahli wal watan an darki mali zawil anwari wal fitan du ci àgg ne ma Samba war a wax wala ma Demba war a wax képp ku ñaar di déglu wala ñett war ngaa wax bu def jotee war ngaa def